asalaamaaleykum suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni ñu koy gisee tey suba ci ay information euh, di ñu xamal que ni tey fii dafa am li nga xamante ni moom mooy ab choc léegi euh, ni nga ko gisee eh, ci maanaam ni ko publier amaana bu ñëwee fii ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee moom mooy stock bi bi ñu laajee dañ ñu ñoom ñu ci wax mais wax nañ ñu carrément naka la affaire yi demee nee na waa ji da doon ñëw di jéggi li nga xamante ni moom mooy tali bi bi mu ko jéggee alors borom oto bi may na ko mais borom euh, moto bi da ko gisul léegi moo moto bi nag moom moo foncé euh, ci kaw waa ji ba ba mu mbëkk ko waa nag dégg naa fii nii euh, xawoon na doy waar ba ba ba ba ba moo ko ñëw jël di comme ni ko waa ji ni mu ko expliqué moom noonu la ko wax nee na li nga xamante ne wax nañ ko waa ji yarul nationalité béninoise comme ni ko ni nga ko gisee loolu yëpp amu ci waa ji da doon jéggi rek ñu doon jéegi di xaar borom oto bi ci boppam moom moo ko may li nga xamante ne mu jàll mais borom moto bi gisu ko amaana bi muy jéggi ci la borom moto bu jóge fee euh, mbëkk ko euh, euh, maanaam heureusement ba waa ji dara dalu ko waa ji dafa def dafa am ay blessé yu garaaw garaaw comme ni koy expliqué mais jotul ñàkk bakkanam alors di leen xamal que ni tali bi à chaque fois noonu lay demee di alerter tamit aussi bu fekkee yéen ñi nga xamante yéen ñay jéggi def nañ fi ay passerelle yi nga xamante ne mu ngeen fee jaar ngeen jégg fa parce yaakaar naa jaar ci passerelle ba ba ba ba ba ba jàll lu mu yàgg-yàgg moo gën li nga xamante ni dafay am ah, souvent bu ñu jotee aussi ci ay information ci ñoom xamal que ni à chaque fois soog yu bari day am foofu dangay gis ki nga xamante ni nii day jaar ci kaw tali bi gis oto bi ah, oto bi dalay may nga taxaw mais yenn borom moto yi ñoom dañuy ñëw rek jàll loolu moo waral soog yi bari nga xamante ni am na fii ci information bi nga xamante ni waa ji ne moom moo ko fekkee moom moo ñu wax loolu mais nee na moom mënul wax parce que bëggul image am feeñ dem nañ ba proposé ko ne ko ñun même bu sa image feeñul sax nun la jël nga wax mu ne noonu mais wax nañu naka la demee li leen ci mën a andil daal lu leer mooy que ni comme la leen expliqué waa ji da doon jéggi waa ji sax waa ji nga xamante ne moom da doon soox euh, ab handicapé la borom may na ko mais borom moto bi gisu ko amaana ci la daw ñu daje ñoom ñaar ba waa ji am ay blessé yu garaaw a garaaw a garaaw parce que ñoom nee nañ bi affaire bi amee waa fii métti woon na trop ñoom ñoo doon jéem a xool ni ñu fexee ba dimbali waa ji ñoom li ñuy xaw a ñaalu aussi tamit mooy euh, sapeur dafa yéex a ñëw parce que ñoom nee presque affaire bi am na presque une heure de temps ñu woo sapeur euh, mais ba léegi dafa yéex a ñëw amaana bu ñu ñëwee affaire yi gënoon a métti mi ngi noonu daal looloo nekk li nga xamante ni moom mooy information yi ñu jotoon am fii ci VDN bi accident bi nga xamante ni amoon na tey suba boroom moto bu mbëkk euh, benn waay bi nga xamante ni da soox euh, moom bu blessé yu demee noonu euh, loolu daal la leen waa Feeling ndakaar andi lool jaa ngeen jëf. maaleykum suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ñu koy gisee tey suba ci ay information euh, di ñu xamal que ni tey fii dafa am li nga xamante ni moom mooy ab choc léegi euh, ni nga ko gisee eh, ci maanaam ni ñu ko publier bu ñëwee fii ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee moom mooy stock bi bi ñu leen laajee dañ ne ñoom ñu ci wax mais wax nañ ñu carrément naka la affaire yi demee nee na waa ji da doon ñëw di jégg li nga xamante ni moom mooy tali bi bi mu ko jéggee. alors borom oto bi may na ko mais borom euh, moto bi da koo gisul léegi moo moto bi nag moom moo foncé euh, ci kaw waa ji ba ba mu mbëkk ko waa ji nag dégg naa fii nii euh, xawoon na doy waar ba ba ba ba ba moo ko ñëw jël di comme ni ko waa ji ni mu ko expliqué moom noonu la ko wax nee na li nga xamante ne wax nañ ko waa ji yarul nationalité béninoise comme ni ko ni nga ko gisee loolu yëpp amu ci waa ji da doon jéggi rek. ñu doon jéegi di xaar borom oto bi ci boppam moom moo ko may li nga xamante ne mu jàll mais boroom moto bi gisu ko amaana bi muy jéggi ci la borom moto bi jóge fee euh, mbëkk ko euh, euh, maanaam heureusement ba waa ji dara dalu ko waa ji dafa def dafa am ay blessé yu garaaw garaaw comme ni koy expliqué mais jotul ñàkk bakkanam alors di leen xamal que ni tali bi à chaque fois noonu lay demee di alerter tamit aussi bu fekkee yéen ñi nga xamante yéenay jéggi def nañ fi ay passerelles yi nga xamante ni mu ngeen fee jaar ngeen jéggi fa parce que yaakaar naa jaar ci passerelle ba ba ba ba ba jàll lu mu yàgg-yàgg moo gën li nga xamante ni dafay am euh, souvent bu ñu jotee aussi ci ay information ci ñoom xamal que à chaque fois soog yi bari day am foofu da ngay gis ki nga xamante ni nii day jaar ci kaw tali bi gis oto bi euh, oto bi dalay may nga taxaw mais yenn borom moto yi ñoom dañuy ñëw rek jàll loolu moo waral soog yu bari yi nga xamante ni am na fii ci information bi nga xamante ni waa ji ne moom moo ko fekkee moom moo ñu wax loolu mais nee na moom mënul wax parce que bëggul image am feeñ dem nañ ba proposé ko ne ko ñun même bu sa image feeñul sax mën la jël nga wax mu ne noonu mais wax nañu naka la demee li leen ci mën a andil daal lu leer mooy que ni comme la leen expliqué waa ji da doon jéggi waa ji sax waa ji nga xamante ne moom da doon soox euh, ab handicapé la borom oto bi may na ko mais borom moto bi gisu ko amaana ci la daw ñu daje ñoom ñaar ba waa ji am ay blessé yu garaaw a garaaw a garaaw que ñoom nee nañ bi affaire bi amee fii metti woon na trop ñoom ñoo doon jéem a xool ni ñu fexee ba dimbali waa ji ñoom li ñuy xaw a ñaalu aussi tamit mooy euh, sapeur dafa yéex a ñëw parce que ñoom nee nañ presque affaire bi am na presque une heure de temps ñu euh, mais ba léegi dafa yéex a ñëw amaana bu ñu ñëwee affaire yi gënoon na metti mi ngi noonu daal looloo nekk li nga xamante ni moom mooy information yi ñu jotoon am fii ci VDN bi accident bi nga xamante ni amoon na tey suba borom moto.